wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñu ngi bëgg a tàmbali insha allah ci bopp xisib bi fa man aslamu surtout sumar ñu ngi yemoon ci yawmal qiyaamati inda rabbikum taxtasimuuna ñi nga xam dañu nekkoon ay tooñkat moom la aaya bi junju koo xam daan na julli daan na woor daan na dox mbokk waaye loxom ba mànduwul làmmiñam wa mànduwul moom daal tooñkat la woon tuumal na kii Tamu ca tegtal lekk na alalu kii ci forcé xaañ na ki tuur tam ci forcé ñooñ nak bu yomal qiyamé ñooñ li yéen ci wax ne di sir ñom ni saaba yi ndax xam ngeen ñi sir ñan la ñu ko ah ko xal dafa ay bagage bari bor ñu jaay ko fay bor mo mu leen may ko ñëw yomal qiyamati ànd ak jullim ya andak asaka ya ak wor ya waye ki xas nako ko tuumaal na ko kii ko lu ñaaw lekk na alalu kii tuuta deretu ki dóor na ki ci tooñaange mo sin borom moy jël bax baxam ya faye ko ñam doon tooñ bu de nga xane borba jeexu bu jël bon boni gaaya ja ko mu yobu sa kon yawmal qiyaamati inda rabbikum taxtasimoona loolu mooy xuloo ba bi nii fa man déet kenn kenn as la mu gën a tooñ mi man ci waajoo xam ne kasaba weddi namu xan xana ci yàlla te mooy muy bokkaale ne yàlla am na doom yemu te wa kasaba weddi na صدق جدك جماع القرآن إذ جاءه بذق مني نول نكو أليس مدغ دفن نكول في جهنم في جهنم مثلا تفواي بوك من للكافرين نيل نيفري بلانغي وخ وخنا نباتو ليسا بو استفام مينغي دو نام بلانغي لخ بو نام رو موي ديديت من ولسي gi nga xam ne eh, jaañooy na mu bi ci dëkk ci dëgg gi te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa sadaqa bi ak ko dëggal ñu ma jullit ñi ñëpp ñu ma jullit ñi kon bu fekkee danga nga nam wa sadaqa bi kon da nga naan lësi bi maanaam lësi na la day nekk maanaam lësi na dégg nga mu ne ulaayika ñooñu nag moom ñoom almuttaqoona mooy ña nga xam ne ñoo ñu ragal yàlla te bokkaale loolu sax na ñaan leen ma lépp loo xam ne yasaawoon na dana mu soob leen waaye xendal bi mu fa seen borom nag fa seen boroom dañ nekk dof ci nit ñi nekk nit ca yàlla moo tax lu leen neex la ñu am ci yàlla boroom bi ne saalika googu la pay jasaal muxsiniin mooy pay wala fetal ya ci seen gëm ga ak jëf baax ya li yu kafira ngir ne mu far na effacé allahu subhanahu wa taala aswa lu bon la nga xam ne rek doog fi gën a bon lu bon la nga xam ne amiloo jëfoon nañ ko way gisi mu fay leen ba tey ajuroo seen yool ba bi axsana allasi ba tey ci lu rafet la nga xam ne doog fi la gën a rafet kaana nekkoon nañu yaamaloon di ko jëf fay leen lu baax la musu jéggal leen lu ñaaw la borom bi ne ala taqnaa dafa nekkul allahu subhanahu wa taala bi kaafin di aju dee sëkk abdoho jaamam bi balaa ngay wax de borom bi ne nag yuxawwifuunaka ñu ngi lay xupp di la tiital bi lësina ci ñi nga xam ne min dooni walis na borom bi mooy xërëb yi naan leen suñu xërëb yi dañ la rey day yóbbu sa xel mi di wax yonent bi waaye wa man yudlil ko sànq na ma ko allahu subhanahu wa taala fa ma du sax ñeel ko min haadin ci benn aji gindi wa man yahdi ku gindi na ma ko allahu subhanahu wa taala fa ma du sax ñeel ko mi mudillin benn aji sànq mu ne allah alaysa allahu xanaa dafa nekkul yàlla bi ci aji not ci nguuram gi di aji not ci mbiram mi ci intiqaami di worom mu mbugal ay noonam ba tey balaa ngay wax mune nak wala in saatuhum wala in dem lañ nga len ñoom yëfar yi man ana kan moy ki nga xamni ni xalaqat bind na mu asamawaati asamaan ñaar wal arda ak suuf la yaqulun na wax ni allah yalla la kon na qul waxal ne len afaraytu ndax du ngeen xamal afaraatu ndax du gën ma xamal doon li ngeen di jaamu min doy lay wala ci yalla loolu mooy lan dana dako ngeen ne yàlla bind juróom-ñaar yalla bind suuf yi li ngeen di jaamu moom luñ bind ñoom wala ne afraat ndax du gën ma xamal du gën ma solo dégg nga ko perte wala in wala laaj nga leen man kan may fi nga xam xalaqa bind na mu asamawaati asamaani juróom-ñaar wala àdd ak suuf yi juróom-ñaar day xool ne dinañu allahu yàlla la ku ne leen kon afaraaytum ndax du ngeen ma xamal du ngeen ma solo ma li nga xam ne te doon yéen koy jàmmi doon lay wali si yàlla in araada ni yéen nam namu ci man allahu yàlla bi duruñ ci loraange bu ma namee feebarloo wala mu nam ma ñàkk loo loolu namu ci loraange bi xal xun na ndax ñoom xiram yooyu le kaasifaatu njàngin la wala kaasifaatu durri yii mën na ñor lor ndax yàlla bu ne ma lor def ma ñàkk du ma am dara wala ma tëlee feebar du ma man dara ndax ñoom mën nañ ñori lor ga yàlla na ma ci man aw araadani wala mu nam ci man bi rahmatin ci yërmande xalawoon na ndax ñoom yooyele moom si kaatu rahmati yi mën nañ téye yërmande yàlla ga te mooy xiwal ak wér-gi-yaram déedéet mu ne xul waxal kon xaas bi na ma sëkk allahu yàlla xale ci ma borom bi dong ya tawakkalu la ña ca ngoy nag na ci jàppam dëgër al mutawakkiluuna woy ngoy yi mooy ngoyukaay bi nag ku loo xam ne leen yaa xam yéen sama nit yamalu na ngeen jëf ala makanatikum kem seen mbir seen mbir ni mu demee jëfee leen noonu nii naka man mii kat am bi lu aji jëf laa kem sama mbir fa saw fa na ngeen xam da ngeen xam man ki nga xam ni yaati yi dana mu ñëwal ko azabun mbugal moo xam ni yuuxsi yi da koy gàcceel wa yaxillu dana mu wàcci alayhi ca kawam azabun mbugal moo xam ni muqimun dafa sax dappet ngeen xam kan bu soobee yàlla amoon na ci ñoom xare ba dara ñëpp mu ne ko inna naka ñun sa borom antal na wàccee nañu aleyka ci yow alkitaaba téere bii mu def ko mu nekk maarifa am li foog laam téere bii dinaa si mu ñeel nit ñi bilàq mu làmboo dëgg nag mu làmboo dëgg kon nag fu ma ñu sa na mu ah du ngir si ñeel na ko boppam de ku gindee ko am na sens o man dal la ku sànk na mu fa in may dulu dina mu sànk àlaa ci boppam rek du ma wàññi dara waaye nag lu mën a am mun a forcer kenn mu nangu déedéet uman te déet yow alayhim ci ñoom sa suma jaam ñi wakiil nga nekk ko xam ne ku ñu garanti nga forcé leen pour ñu jub allahu subhanahu wa taala yatawaffa mooy kii faat al anfusa bakkan xina mawtihaa ci waxtu dee bu dee moo koy faat kenn du ko mën a delloo ruuxam mu ne ba wa mooy faat moom borom bi mooy faat allati bakkan mu nga xam ne da mu deeagul kenn du koy faat nag fi mën a amee ci nelawam bi ba tax wolof ne kon nelaw degu ndaw la mais farat bu nga xamni degul mo moo ngi fàtte nelawam ya fa yim suko mu téye borom bi allati bakan ba nga xamni qada dogal na mom borom bi alayha ci bakan ba al mota de ñu yeewu den tension la tension la reer ba suul tëdd ñu ne tension la ya, borom bi teyena roga fi mu suko lati qada al wa mu dal de yebal nak al uxra ba ila ajil musamman dem ci dig buñ tuddu la bu ko defee nag aay bi li mu jàngale mooy tawhid tawhid nit dafay nangu nit day nangu dogalu yàlla day nangu dogalu yàlla yàlla li mu gën a bañ mooy ku bokk ci nguróom gi te borwul la ci lekk ba suur naan sa ataaya tëdd ñu xëy dajji si bunt bi ne ne tension la fi mu su ko lëtti xadd alayha al borom bi ne inna fi zaalika nekk na ca eh, li ñu wax nii لعيتنا عي كابتي وانا كاتون يالا اكنم لقوم نيان يقمن يتفكرون دنا نقات دا نيو يالا كين لا بروم بي ني امي تاخزو دا دنيو جاب ني يفر يا من دون الله ولا في يالا سوفا ويتينو يوم درام يوم القيامه واخلن قلنا لين اه دا دنا نيرم واي من خمسه بفم دوغ ديم كاتاف فيرمو داروبا اسف نينكو اه ندخ نيوم دنيو رامو wala kan donte nekk nañu laa mi ko na moom si an dara ci nguuru asamaan ak juróom-ñaar kon ni ñu ram moom du amuñu fa dara wala yaqiloo na tax amuñu xel sax far nag amuñu xel ndax ay xëram lañu xul waxal lépp yàllaa ko jegoo loolu sax na ñeel ko mulku samawaati nguuru asamaan yi juróom-ñaar wal ardi ak suufu juróom-ñaar su ma tur joxoon na topp des na leen delloo yéen ñëpp ilay ca moom ku nekk mu la la nga jëf wisa zukkira ndem nga xam ne tuddeef na ci waaraate allahu yàlla waa doxu moom dong isma asan mu foñ bañ xulubul lazina xolu gaa ñi nga xam ne laay na du ñu gëm bilaaxati yawmal qiyaamati wisa zukkira ndem tuddeef na gis na ñi nga xam ne min doonihi walis na ko te mooy seen xëramiya isa ci métal hum ñoom ñëpp yastafsiroon nañu kontaan bég bu ko defee aaya bi nag ñu bàyyi ci xel bàyyi ci xel gàmmkat yi sax xam nañ ko bay di gàmm ci tawhid tawhid ñëpp a ñelaw du am dërëm ay waaye boo ne sëñ diw allahu akbar <laughs> waxee de wax ci tawhid rek yàlla ne yàlla nee na yàlla rek kenn du la jox dërëm ñëpp a ñelaw sax far waaye boo laalee mel na mag dix mille yeeg we yow <laughs> bu ko defee nag bokk la fi muy waxee moom fii xërëm yi la wax waaye lii misaal la ngeen déggee ko noonu ah ngeen déggee ko noonu xam tax suñ borom bu bëggee jaamam bi daf naan ji daf naan jibril yébaane ci asamaan juróom-ñaar te sama jaam jiw sàngam man yàlla bëgg naa ko jibril yébaane ne borom bi ne bëgg na jaamam diw sangam malaaka yi yeen ñëpp bëgg leen ko ak mboolem bindee yi wa asamaan bëgg ko mu ne ko nekk ñu wax ko ci wa suuf ne ko bëgg wa suuf it bëgg ko jaam bobu nak malaaka yi yibane ni yalla bëgg na ko ci asaman ak suuf ba sama tewé ndox mako ci naan bëgg jaam bi ba gàncax ga sax ci suuf si ku ca lekk bëgg jaam bi nangu ca lekk nga lekk ca meew ma la sooma bëgg jaam bi béy noonu xar noonu nag noonu moo tax nit ñi li ñuy def tey ñu ko yàlla bëgg jaamam yi ca aras publier ko taw ko ndoxam gàncax gi sax ku ca lekk bëgg leen loolu rek la loolu dong la waaye woowuñ kenn ñoom woowuñ kenn déedéet woowuñ kenn xanaa ci jaamu yàlla borom bi nag ku waxal ne allahumma bi maanaam yaa allaahu la woon nag ah yaa allaahu la woon ñaata wa soppi ko miin maa la ca muñ yaa allaahu la woon li nga wax yaa allaahu la woon moo tax yow buur nga bay firee yow buur faatira samaawaati yow mi aji bind asamaan juróom-ñaar wal ardi ak suuf yi ñaar alimil xaybi ngay aji xam li faddu lépp al bi alu istixraar la li faddu yëpp yàlla xam ne ko wa shahaadati ak li teew yëpp yàlla xam ne ko ante yow borom bi taxakumu yow da ngay atte benn ibadika diggante sa sa jaam ñi fii ma ca nga xam ni kan nekkoon nañu yaxtalifuuna di wuti fii ci loolu le ci mbiru diina kii nangu ak ki bañ yaay atte de wala ana lillasiina bu soxoon na ñeel ñi nga xam ne salamoo dañoo tooñ seen borom ma lépp loo xam ne fil ardi mu ngi ci suuf sii ñu moom ko moom Amérique moom France moom Italie moom Allemagne yëpp umir loo ak ki ak moom kon nuñ koy def laxta daw bii dana ñu ko jotoo misoli ansa bi ngir ñaaw mbugal ma yow xiyamati kon danañ joxe lépp ngir mucc ci mbugal ma ba daa feeñ na mu lawum sax ñaan leen min na laay te koy fay yàlla maa loo xam ni dañu ko doon nekk yoon yaxta si waa di ko jort kenn ku nekk am nga lay jort dana waaw xanaa man yàlla man kenn la yàlla bind mbugal mu metti mii man kenn ko moom moo tax lu ñu jortuwul mooy dal seen kaw day métti ba ku ne yaakaar ne yow kenn la yàlla bind in yàlla musal ñu ci borom bi ni ba daa feeñ na mu lahum ñeel leen sa nga xam ni kanu nekk fàgg ne nañ ko waa wàcc na mu ci ñoom ma lépp loo xam ni kanu nekkoon nañu yàtta si noonu sa wote bii ci loola dañ mbugal xamut mbugal ma ñëw na maakaano bi yesta si woona loolu la ci nam mu ne fa isa masta ndem laal na al insana doomu aadama mu fa muqaddam mu ne mu ci alu alu jins la nag alu jins bu laalee doomu aadama durun lor ma di ma waxoon léegi ñàkk wala feebar nu muy def daana mu wooñu ñun sa borom su ma topp isa xawal naahu nem jox nañu ko ñun yàlla ni'matan eh, xéewal min naa gudd ne tukkee ci ñun xala mu wax ne innama utitoo xamal ne joxeef na ma lii xalaa ma ci xam-xam boo xam ne mu ngi fi man su ma technique su ma mën a liggéey moo tax ma am alal ji su ma mën a liggéey lay wax borom bi ni belli am yee moom euh, fitnatun dafay nekk fitna walakin ak zoro waaye lépp ñoom laa la mën a xamuñu loolu xamuñu ko xamuñ ne ki am fitna la ci moom ki ñàkk fitna la ci moom xat xalaa waxon na ko les seen gaañ nga xamne min qablihim ñoo leen jitu won bu de borom alal ji la fay sagan rek ne man suma mbir baxna na du julli julli gu bax du dox mbok du xor du jox asaka mbiram baxna bu de ki ñak ki la mu añane ki am fi ne jàngi non fi ne jàngi non borom bi ni ñom ñu jitu waxon nañu ko way fama ma ax naa jëriñul xan nga leen ma kanu la nekkon nañu yëg si moom dégg fàggande ko faasa boobu jot na mu leen sa yu atama ñaatu li nga xam ne kër bu fàggandikoo woon nañ ko mooy pay ga nee na wala si na gaañ nga xam ne zalamoo dañoo tooñ min haawulaay tukkee ci ñii na ma ci waa Quraysin te nag ñëpp la ku tooñ la ci nga bokk waaye aay bi fa wàccoon ci waa Quraysin woon ñoom la wàccoon te yusuf dana mu jot leen zayi atuma ñaawteef li nga xam ne kat boo fàggandikoo woon nañ ko wa waahum déet du ñoom bi mu'jizin ñu da koy faat borom bi mukk mënuñ ko lottuloo de alam ya'lamu xanaa dañoo xamul ni andaa nag borom bi yëfsutu mooy yaatal lool risqa wërsëg li muy saaw ci ku ko neex gi natt ko ba xam ne muy def ñu mu tane wa yaqdiru mu xatal wërsëg ci ku ko neex mu xool ba xam ne muy def ñu ko tane mu ne inna fi zaalika nekk na ca loolu ayatin ay kaatu yoo ne kett kàttanu yàlla ak kennum li xam ñeel ñi nga xam ne ñooy yu'minuuna danañu gëm ay bi ñu bëgg a jàng nag ki ñoo wax siiw nga xam ne moo reyoon ci moom la wàccoon ay bi yonent bi sax ci moom ne ñëwal dugg ci diina yàlla ji ñëwal nga dugg ci diina ji mu tontu ci bi ne ko yow yaa déclaré ne ku rey nit ci tey safara la jëm ku bakkaale safara la jëm ku njaaloo safara la jëm man def naa yëpp nga naa ma ñëwal dugg ci diine noonu fee wursi lan laa fee wursi ba mu waxee loolu yàlla wàcc aaya bi ne illa man taaba wa amana wa amila amalan saalihan illa man dara xam taaba tuum na mu wa amana mu gëm wa amila mu jëf amalan jëf saalihan ju yiw mu ne yénte bi sart yi moo bëri taaba amana hamila hamala saalihan sart ya bëri xattanu ma ko salaat yi moo bëri xattanu ma ko boo waxee loolu yàlla ko bëgg nga jub rek da jub borom bi ne inna laa laa laa yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru maa duuna zaalika liman yashaa mu ne yonent bi dégg naa li wax de yàlla day jéggal bàkkaar yëpp ba mu des bokkaale waaye kum neex lay jéggal est neex naa ko li muy yashaa nga wax di li muy yashaa ku ko soob bu mu tuubee soob moo ko nag yàlla Muhammad bu ko bàyyi de demal de demal ak moom de bu ko bàyyi de yàlla wàcc aaya bi nag ne qul waxal ne yow alayka salaatu wa salaam ne yaa ibaadi yi yéen samay jaam ñi bu leen ngeen yaa ibaadi ya allasina gaa ñi nga xam ni asrafoo dañoo sàggan dañoo jàgg dee ci seen bopp lépp lu ma tere def nañu ko lépp lu ma digle nanguñ koy laal moo tax asrafoo ala anfusihim ñi nga xam ne dañoo jàgg dee ci yàq ci seen bopp laa taq nitu laa taq natu laa taq nutu ñetti marque yëpp ci noonu gi la tax nitu bu len xaddi la tax natu bu len xaddi la tax nitu bu len xaddi mi rahmatillaa ci yermande yalla ina la nak borom da fay jéggale asuma bak asuna bakkaar yi ban ak ban moy jamiaan lepp mu ne kon nak duguna dana di yëgal yep duguna mo tax borom xam-xam ni ay bi ëpp si alquran moy bi alquran yep yep bee ëpp innahu annaka mom borom bi xam nga bokkaale bi ndut bu ñu jéggale kay moy bi borom dee ak moom waaye lu mu rewé bu borom tuwé effacé nako yalla yàlla effacé na effacé dégg duñ ko jéggelé da fekk borom dialé ak moom de waaye ku tuub mu jéggal innahu qafuru mom may jéggelé kon bi arahimu may aji yéré meji wa bo na ngeen delu rabbikum ci sen borom wax li mo ngeen xamatu nak lo ñeel ko min qabli ayati yakum ñakum leen di ñëwal la ramu bugal mi su ma topp laa yansu laa tunsuroona te bu defu len dingo de nok ko daa mbugal moom wa tabo na ngeen topp asana ma la gën a rafet la nga xamne ant la wacce ne ko ilaykum ci yéen rabbikum ke ci sen borom min qabli an yatiyakum njëkk mu leen di ñewal ana ba mbugal mi wax tan ci mbettel wa antum fi la tun du ngeen koy yek toog a toog mbugal mu ñew nga nan di yaakaaruñ kon borom bi ne bu len ko nangu moo mu ne kon ko la mu wax nafsun bakkan ya hadrata wala musama sama pertement ya hadrati wala sama bittu ala ala ma faratu te lamo sagne non fi jambi lay ci to top yalla borom bi ne ngi ñaw kuntu man kan nekkon na ma la mina saakirina di way saboté ñu doon jaamu aw taqool wala mu wax law anna laha fekkoon yàlla daan nii gindi na ma la kuntu ma bokk mi ñal muttaqiina bokk ci ñi way karatun ak ak rek delluwaat ci àdduna ba fa kon ma nekk mi ñal muxsinina ca way rafetal yi borom bi ne balaa ah kay ñëwal na la xat jaay ka ñëwal na la ayaat yi samay kaawte yi mooy alquran ji fa kasabta dal nga dal di weddi biyaa ci moom wa takbata nga rëy rëylu wa kunta nga bokk mi ñal kaafirina tara les yi ne da nga gaa ñi nga xam ne ke saba doo ñu daal laaj ci wu jóob seen telmaay ya waddatun nekk loo xam ne dafa ñuul kukk alay si nekkul fi jaanama ci jaanama mos wan mu takkabiri na ah mooy wa déggu ci àjjana ja laa yo mosum di leen laaal soo aji bindi mooy aji méngoo ala ko suñu lépp lu mu doon moo def lu ko neex loolu sax na ñaaw ko maqaadiru samaawaati caabi asamaan juroom ñaarul addi ak suuf caabi ye yëpp yàlla ko yore asamaan ak suuf seen caabi ye borom bee ko yore na Usmaan ibnu afan la yonent bi borom alal la woon ne ko yow yàlla yónni luy caabi asamaan juróom-ñaar waxal ñu ko mu ne ko waxal laa ilaha illa allaahu wallahu akbaru wa subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfirullaha wala hawla wala quwwata illa billahi huwa al wala wal aaxiru wa zaahiru wal baatinu bi dihil xayru yuhyi wa yumiitu wa alaa kulli shay'in qadiirun ne ko baat yi boo ko waxee suñu borom ubbil la caabi asamaan juróom-ñaar yëpp la ñu ubbi mooy caabi yi lu dayoo doy waar la te fa la xéwal ga nekk gu sell la fa la nekk yàlla yónni ma ko si naatumaan dégg borom bi ne wala si na gaa ñi nga xam ne kafaroo dañoo weddi bi ayaati laahi ci kawte fii yàlla yi alquran ji walaykum ñoom alxaasiroona muy perte yaa noonu ñuy perte kul na leen a taamuruuni nga xaddam ko afa taamuruuni ndax da ngeen may digal ah bu nu ma jaamu xale laay ko dul yàlla lu tax ngeen di ma sant ma jaamu di ma digal ah bu nu ma jaamu xale laay tax ngeen di ma digal. Mm-hmm. dafa doy waar nag xam nga taamoro nii ci wàllu grammaire lu ko nasab lan moo ko nasab te bu ñu xoolee fa benn moo fi nekk te te gannaaw dafa nekk bokk ci afaalu xam si dafa war a am ñaari noonu taamoro na nii te day day rafaay saxal noonu benn bi nekk noonu wiqaaya nekk noonu wiqaaya waaye dafa indi benn noonu dafa taamoro nii dafa taamoro nii dafa taamoro na nii dafi nettale ànd dafay soxla grammaire naxante bu ànd grammaire wante grammaire da mooy naxante alquran moom xam-xam nafu mooy naxante alquran dégg mooy naxante alquran waaye moom yëpp yëpp yëpp mhm. borom bi nee na wala na mu ileeka ci yow wa ila lazina ak ñi nga xam min qablika ñoo la jiitu woon di la la in asrakta walaay dem bokkaale nga la yaabatanna dana mu màbb xamul ko sa jëf te wala tëkkoon nan da nga nekk wala tëkkoon nan na mu ñëw xaas ngeen bokk ci way perte yi balillaaha yàlla dong xaw bu nanga ko jàmm bu ko da nga bokk min saakirina ci way sant sa borom yi wa ma qaddaru màggalu leen yéen doomu aadama yi nag màggalu leen mukk nag allah yàlla xaqa qadrihi dëgg-dëgg màggalam saaba yi ne mënuñ ko nag moo tax yonent bi ne subhanaka ma arafnaaka xaqa maarifatika wax ne subhana man laa yaalamu qadaruhu xayruhu wala yamliqu alwaasifuuna sifatuhu sell ñeel ki nga xam ne ku dul moom xamoom darajaam mukk wala addu suuf si jëmeen mboole seen xabdatu ngëbinam la suuf si yëpp ngëbinam la maanaam moo ko moom gis nga ni nga def sa portable bi lu ko raw la yàlla def suuf si ni mu neex a dégg xaddutoo la xam nga lu tax portable yu magi yi ëpp na sa loxo bi ëpp na ko fuuf mun na ko boo ko xam lu feeñ suuf si nag bu yàlla téye dara lu feeñ dara lu feeñ xaddutoo <laughs> nu ko neex lu koy def nu ko neex bu ko neexee mu tàng boo neexee mu sedd boo neexee mu ngelaw nu ko neex la koy def boo neexee mu yëngatu boo neexee mu dal xaddutoo dégg yomal bi su ba wasawaatu asamaan juróom-ñaar mu duy yaatun lu ñu taxañ la lem ko bi yemini yi ca ndeyjooram ba yàlla ne su ma ndeyjoor bi la téye asamaan juróom-ñaar ba ko de ca ndeyjooram ba la téye asamaan juróom-ñaar bi yemini yi moo tax alxuraan fu ñu taawil ko alxuraan force ñu taawil ko bi yemini ay bi qudrati yi ca kàttanam ca kàttanam foog ñu taawil alxuraan boo ko taawilul rek dafay doy waar parce boo ne ndeyjooram ba kon day am cër comme ñu su ko am ndeyjoor am nga càmmooñ am nga tànk kon day mujj nekk mbindeef li moo tax ca kàttanam dafa am xam ne dañ ne mu yaatin daf ko mu nekk xaal bu ñu gisee ñu nasab ko nag yàqu ko de dafa am ñu ko rafaa am ñu ko nasab def ko xaal waaw njàngin la moo tax dafa am njàng mut wi yaatin am njàng mut wi ni ne na subhaanahu tudd na mag sellam wa taala naa may si la nga xam ne ñu ko koy bokkaale wala fi wala fi sër ci buftu ba façon mu faatu man fi samawaati ñu nekk ci asamaan juróom-ñaar man fil ardi ak ci suuf illaa man ndare ña nga xam ne incha allah ñax na yàlla ma wóorul xay ni ya ñoom duñ faatu bi wala buftu ba ñëpp ay faatu ba mu def ñu ñu ne mooy kan ñu ne mooy jibril la ak asrafil malakul mawti mooy asraayil suñu borom ko mawti kan mo def ci mbindee yi waaye kan mo def ci mbindee yi te yalla gëna xam ko fa def mané ko def na jibril ak mikaayil de ak israfil ak sa jambu lott bi di ko mawti mané ko demal nga jël bakkan ak israfil ak bu mikaayil demal nga jël seen bakkan mo dem jël seen ruux ñu melni ñaari doju daan ci ko suuf ñaari ponku li doj non lañu melni borom bi ne mut yaa malakal mawt fa yamut mu des jibril xam nga rey nañu la ba noppi borom bi ne ko deyal mu dee mu des jibril nag mu ne jibril nag léegi maag yow nu muy defee foo xam ko fi dem am ko dem de jibril ne ko tabaarakta wa taalayta yaa sa yow yaa fiy des abadan abadan abadan yaa jibril mii mooy dem mu ne ko ah jibril dee mënul ñàkk de fi borom bi jël jibril des ko moom kenn noonu lay demee nag kon ñooñu mooy ñi nga xam ne mooy ilaa man saa ilaa man saa allah léegi mooy wal gu njëkk ga diggante bi nag nekk na ñeent fukki at bu ñu def gu ñaareel bi boo tax mu ne kon suma nu fiqu topp affaire fii ci moom uxraa beñeen fi taa ci méttul hum ñoom doomu aadama yëpp góor jigéen mag ak ndaw xëyaa mun di way taxaw yéen suro na ku ne xool lay ñëw ci yow sa jëf jë waas raqat yi mu leer naññi alaadu suuf si noonu la baa ci leeru boromam suuf sa leer ci leeru bi subhanahu wa taala wu dinaa tegeef alkitaabu téere bi maanaam jëf téere jëf ya ku nekk ñu jox la sa téere wa ji a ñëweef bi nabi ne ci yonent yi wa shuhada ak wa shahid ya moo ci dewoon ci jaat ba ñoo andi yonent yi ak ñi nga xam ne dañu faatoon ci jihaad ba wa xudi atteef benn seen diggante bi làqi ci dëgg waxum ñoom laaj lu mu a dafa leen tooñ mooy duñ jox lu bon ka am lu baax di wàññi lu baax ci ka am lu baax loolu mooy tooñ tooñ mooy teg mbir fu dul palaasam kon mooy nga jël ki lu bari wàññi ko ca lu baax la jël ka amoon lu bon jox ko keneen ka amu ko woon borom bi loolu du am au fait fayeef ku nafsin bakkan bu nekk maa amilat la mu jëfoon wa moom borom bi ma aji xam bi maa yëfaloon la nga xam ne ñu ngi ko doon jëf ku nekk dana la fay wasiqa allazina ma ngi gañ nga xam ni kafaroo dañuy weddi di forcer nak comme ngay gërbale ay xar gërbal ñu tërëf tërëfi wasiqa allazina nekk ñu nga weddi nañu ñu jëm ila jahannama nek su morande ay mbolo moy turu saar yi hatta isa jaauha ba nga xam ne ñëwal nañu sawara refu ti fu tiyaat ubbeef abawaa buntam ye ya, de nga li wax dañuy dakk gaay ñuy tërëf tërëf yi bu ñew bu ci buntu safara ñu ubbi tàngoor woo tàng jër ñu wu ci biif li bokul delegation de dina ko wax ci kan ci kanam incha allah ñii dañ leen di gërbal comme fas yi ngay yi ak xar yi ngay dàq om ñeen leen xasata te xam ne mooy kay méngo sa war a wa ne alam yaati mu xanaa daf leen ñëwalu doon rasulun ay yonent yoo xam ne min kum tiggéen nañ ci yéen yatloo ñuy jàng aleykum ci yéen ay yaati fi borom bi wa yusiroonakum ñu leen di waa di leen xupp li xaa yoomikum dégg seen bit bi yaataa bi xaaru ñu ne balaa kay walakin li fi nekk mooy xaqat war na woo kalimatul azabi baatu mbugal bi te mooy la am daan jahannama war na ma alkaafirina ci yéefar yi xelam waxe udxulu na ngeen dugg abaaba jahannama buntu jahannama xaalid ngeen di wéy béyal fiihaa ca safara wa fa bisa bon na maswal mutakabirina sax waayu ña nga xam ne ñoo ña doon rëy rëylu wasiqa lazina maa ngi ña nga xam ne taxaw dañoo teetoon boobu seen borom du nekkul yàlla ñu ngi ko doon màcc ndekku ñu maa ngi leen ilal jannati ñu ñëw ñu jëm ajjana ma ñu jëm ajjana su war a nekk ay mbooloo hatta isa jaauha ba ñu weef ko fekk mu nga seddu guyi ko futaat fekk ubbi na bu yàgg ab booba buntam ya xaar wax loolu ñeel waxaala lahum xasnata nga xam ne mooy koy garde àjjana naan salaamun jàmm jàmm aleykum yàlla nekk ci yéen kiptum yéen dee tey ngeen seen dund tey na seen dee tey na fa du quraan ngeen ko dugg xaalidina ngeen ne way biir ci àjjana yàlla nañ ci bokk waxaala ñu wax ñoom ñëpp alhamdu cantillahi sax na ñeel yàlla lesi mi nga xam ne sa naa na dëggal dëggalal nanu wax doo dëxalam waaros naa mu doon looñu aada suuf si na tabaw ñuy wëndeelu di dem mu ne jënd àjjana xëy na fu ñu neexee te àjjanaa ngi noonu ñuy dugg fu ñu neex di génn di waxtaan di xaqataay di ree fa baax ajurul amilina yoonu way jëfi lu baax ya borom bi ni wa taral malaayikata daa gis malaayika yi ñu da way wër mi xaw di aksi ci la wala anas ñoom nag yu sabbixoona ñu ngay sàbbal malaayika yëpp ngay sàbbal waaye nag bangale bi ànd ak sant seen borom waxu di ate baynum seen diggante bilaa ci dëgg ma doomu aadama yi waxee la waxee alhamdulilah sant ñeen yàlla baa mi ko borom bi ndéef sadaqallahu al-azimu balagha